daanaka sax defe naa dégguma ko bu baax wax ne que yeewi askan wi nee na yeewi askan li mu wax moom la soxal ñun du ñu yeewi askan wi bu ñu bëggee am réponse yeewi askan wi dañuy dem laaj waa yeewi askan wi suñuy naataangoole dañ bokk jongante politique bi mais nag dañ am seen yoon ñu nit ñu am suñu yoon ñu ne ñu ndax pare nañ pour liggéey ak beneen coalition waaw ñun li ñu dàq mooy liggéey ak benn bokk yaakaar wala ku lëkkaloog benn bokk yaakaar abadan dayman dappe du ñu liggéey ak ñoom waaye beneen kuréelu jongante boo xam ne fekk nañ ko ca péncu ndawi réew bi ñu méngoo gis-gis ñu xam ne ñoom Sénégal rek leen tax a jóg ñu nit senegal rekk tax ñu jóg parce que bu ñu Sénégal taxuloon ñu jóg ñun ñii suñ coalition bi du juddu docteur Abdourahmane Diouf wax na ko ci jëlbeen gi ñi fi toog ñépp mënoon nañ nekk tête de liste waaye xam ne que objectif bi du ñun objectif bi Sénégal la moo tax ñu tabax aar Sénégal donc ku ñu fekk ca pencu ndaw réew nga am xam-xam ñu wax la la saalum saalum di wax ku la sut ne ko njool ma ànd ak yow liggéey liggéey